صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وامق maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ñëw fii toog ci sa pegg maag ñi ma àndal ñépp duggulee di yàgg nañ fi ñëw ndax ñëw ci kër baay ngëneel la yokkute la kàddu yi may njëkk a yëkkati nag kàddu njaal la ndax fan yi weesu yàlla dafa dogal kenn ci kër gi wàññeeku boobu yaa ngi bitim réew muy sarak loolu nag ci àdduna la nekk kon buñ fi ñëwee kàddu yi njëkk a yëkkati mooy sant sunu boroom jaale la di ñaan yàlla mu xaree ko àjjana bi mu ñëwee bi loolu di am dafa la fekk ci mission yàlla defal la suutura defal ko senegaal ndax fa nga nekkoon lislaam nga doon liggéeyal tànk yi nga xam ne si waajur bu tedd wi dox nga dox ko ci réew mu xaw a sori senegal ci jamono bu lëj yàlla defal la ci ndam maanaam yokk islaam gën a yee nit ñi ci islaam bu ci yàlla defalee ndam ñun dañ koy sago en tant que jullit sagoo ko en tant que doomu senegal ndax mission yu demee noonu dëgg la mësuta yomb waaye ci jamono tey jii la gën a jafe nga xam ni jamono mën nañu wax ni yàqu la gën a jege ka defaru ndax fi xam-xam toll ak ni nit ñi di doxale kon sëriñ bi yàlla nañu la yàlla fayal. amiin ci sunu kanam ba mu yàgg. ndax boo liggéeyee lislaam ci lañ bokk. waaye boo dee doomu senegaal liggéey ko muy jariñ islaam te di sagu Sénégal kon sénégalais bu nekk war naa jàpp ni moom nga ko defal moo xam nag ku bokk ci diini islaam la walla ku ci bokkul ndax lépp loo xam ne day yokk réew mi lépp lu yokk askan wi senegal yëpp ko bokk yàlla na ñu la yàlla fayal mu doon ay tànku ziar tànku taataan ci sa barke ndax niñ ko waxee léegi man de gisuma ci doomu Sénégalais yi koo xam ni. bëggut a toog ak yow waxtaan ak yow ngir xam-xam bi la yàlla dénk. boo dee waxtaan ak boroom xam-xam nag njariñ la. Mm-hmm. dana la jariñ tey dana la jariñ ëllëg. dana la jubbanti it ndax àdduna tey bi juum fi dafa yomb wàcc ci fi yoon it dafa yomb li la ciy dimbali rekk mooy di waxtaan ak boroom xam-xam yu rafet yi rawatina mag mu mel ni yow muy tànku ziar ginnaaw xew-xew yi fi am yëpp dëgg la ñëw naa fi en tant que ñëw naa fi en tant que premier ministre waaye ni ko Barham waxee léegi diggaale naa kër gi en tant qu'étudiant dëgg la bi ñuy sañ rabita maa ngi taxaw foofu moom yàgg nañ fa añee yàgg nañ fa reere yàgg nañ fa jàng yàgg nañ fa toog di ut xam-xam kon li nga xam ne Baye liggéeyal la ko Sénégal njabootu Baye yàgg ñu ko woon gëmuma ni am na ku nekk ci biir Sénégal wala ku nekk ci biir Afrique wala sax koo xam ne yaa ngi ci àdduna te amu ci loo xam ni dina la jariñ fignoré ñu doon jëm ci élection yàlla dogal li mu dogal ñu ko ci sant nag bu baax a baax a baax ndax lu nit di ut rek jàmbaxu ko gën bi muy campagne it am na baat bu ma doon wax xëy na ñu bari daaw ñu ko déglu mooy dama daan wax yàlla nañu yàlla may jàmm ju mot sëkk daaw ma yaram rek ci yàlla nañu yàlla may jàmm jàmm ju mot sëkk ndax dara mënut a defaru dara mënut baax surtout lu mel ni réew mu mel ni senegal te xam ni mënuñoo tàggoo ala kulli alin ñoo ko bokk ala kulli alin dañuy ànd te ñu ñëpp ay mbokk lañu lépp lu ñu mënti ut moo xam xam-xam la moo xam alal la moo xam leneen la bu ko jàmm lalulee rek loolu du rafet walla amin bi boo ko amee xëy na mbégte bi ñu ci waroon a am doo ko ci mën a am sëñ bi bu ñu ñëwee ba toog ci sa dañuy njëkk a ñaan mooy nga ñaanal Sénégal am jàmm ñaanal ko doomu Sénégal yëpp. ñaanal ko it képp koo xam ne yaa ngi dund ci biir Sénégal. waaye bu dul Sénégal sax képp kuy doomu aadama. war nañ laay yéene jàmm. ndax yàlla ku mu sàkk rek. war ngaa mën a amal njariñ askan bu nga bokk war ngaa mën a jariñ fa nga dëkk. kon xew-xew fi amoon yëpp ñu dañ cee sant suñu boroom baax la waxuma ko it pour rafetal waaye dama ko wax parce que loolu lay dund ndax buñ la yaree ci diine boo jàppee ni def nga li nga war a def la ci des sa nekkatul sa responsabilité lay sa responsabilité mooy la nga war a def boo ko defee ba mu mot li ci des nga bàyyi ko ci loxo sunu borom bu nekkee da nga gëm ñun nag ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu continuer di gëm ndax loolu moom moo ñuy jox capacité jox ñu doole jox ñu it bëgg-bëgg ak yéene la nga xam ni sàkkoo nañ ko démb di ko sàkku tey la nga xam ne yéene woon nañ ko réew mi démb ak barki démb teel lañ ko gën a yéene mm-hmm. moo xam ci jëf la moo xam ci wax la anam bu mu gën a rafete incha allah dinañ ci taxaw ba mu mot sëkk ba rafet xëy nag bi yëf yi paaseeg léegi jàppoon naa ni toog dallu loolu bokk na ci li gën a dimbali réew mi ndax bu nekkee réew dañoo bëgg nekk rek ci campagne électorale boo xam ne buñ ko tàmbalee du jeex liggéey du ci am place te nag la gën a jariñ réew mi dëgg la politique bokk na ci waaye it liggéey da cee bokk kon day am jamono joo xam ni féetewoo noppi bokk na ci li nga xam ni jàpp nañ ni moom mooy jàppale mooy ku nekk ci la nga war a nekk nga nekk ci ku nekk la nga war a def nga def ko ba waxtu wi nga xam ni la ñu def mën nga cee wax nga wax ci wala war nga cee wax nga wax ci loolu incha allah tànk yooyu la ñuy fas yéene taxawe di ñaan yàlla it ñu mën di fi ñëw bës ku nekk di waxtaan ak yow di waxtaan ak askan wi tàllalal suñu loxo pour ñaan lii nga xam ne ñu ngi koy def te soxlawuñ ci leneen lu dul jàmmi askan wi jàmmi réew mi yàlla defal ñu ci barke ndax kooku moom domaine am la moom mooy xool te nekk ci sa biir xol na ko bëggee mu xool nam la koy defalee daanañu faral di toog ci ay ndaje xam naa ne Cheikh Omar noo ko fàttaliku wàllu Zahra wala Ndey Sali bu ñu waxee ba pare ku nekk di wax dañoo war a def nii dañoo war a yéenante jàmm ma leen nañ ñaan ñaan bi gën a gàtt mooy ku nekk yàlla na la yàlla fay sa xol ku ko mënul wax mënoo koo dox am na leneen loo denc lu dul lii génn ci sa làmmiñ mm-hmm. kon ñu ngi continuer di ñaan loolu di ko ñaanal senegal yëpp ci nekk rek la nga denc sa biir xol yal na la ko yàlla fay ndax loolu moom mooy tax lii nga xam ne dañ ko bokk muy Sénégal yàlla jëmale ko kanam ndax ku nekk ñun xëy na ba sañ nga bëgg ngaa am ku nekk ñun yéene nga sa njaboot lu baax waaye boo ko yéenee sa bopp yéenee ko sa njaboot boo ko yéenee askan wi yëpp day daal di mot daal di rafet loolu moo doon tànk yi nga xam ne moo ñu fi andi woon tey bëgguma woon nag génn ci réew mi di wax te demuma ci kilifa diine yëpp demuma ci kër yi ndax Sénégal dafa am nu ko yàlla tëggee lu ñu fekk la li ñu fekk nag boo bëggee mu dox rek da nga ciy jaar boo ko yokkul bu ko wañ man loolu laa jàpp. Hmm. loolu laa gëm. gëm naa ni kenn mënul tabax Sénégal lii nga xam ne yéene nañ ko Sénégal muy émergence te yéen ñi nga xam ne yéenay kilifa diine yi yéen ñi nga xam ne yéenay kilifa aada yi boolewuñu leen ci ànduñu ceeg yéen man de gisuma ci àdduna bi réew mi nga réew moo xam ne tey ñee nañ ko te amul li mu am te sukkandiwul ci ay aadaam ak i baaxam man gisuma ko gisuma kenn koo xam ni jéggaani nga leneen ba mën cee def loo xamante ni moom moo gën gën a rafet gën a taaru gën a gaaw li sa aada santaane wala li sa diine santaane loolu moo tax jàpp naa ni tàmbali lu nekk mooy ñëw ci kilifa diine yi tàllal leen loxo waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñun ñëpp lañ njaboote boor boo mënti nekk ñoom dañ laa njaboote buñ la wax rek da xam la nga xam ni moom mooy seen soxla te du seen soxla bopp mooy soxla askan wi foo nga xam ne jàpp nga ni boo fa jaaree saafara ko dina gën a gaaw dina gën a rafet dina taaru te dina neex ñëpp loolu bokk na ci li nga xam ne jàpp na ni ñu jéego yi ñu war a dox rek bu ñu jàpp nañ mënuñu cee am ndam walla am ci barke te ñëwuñu toog fii ci sa pegg déglu la tàllal la loxo bu ñu génnee nag la nga ñu digal la nga ñu sant doon la nga xam ne ci lañuy sukkandiku pour la nga xam ne jàpp nañ ni buñ ci doxee wala buñ ci waxee mu saafarawu ci loolu lañuy sukkandiku moo xam lu ñu wax la ci mbooloo moo xam ne loo xam dañuy wéet yow nga wax ñu ko loolu la ñuy tëgg xam ne lii jëmale askan wi kanam loolu rek la mën a doon ndax luñ ko xam-xam wala luñ leen bëgg-bëgg yéen la yàlla may loo xamante ni yéen ñu gën a xam ndax suba ba ngoon ñun ngeen seen suñu soxla ngeen nekk suba ba ngoon yéen a ngi gëstu ci li ñuy jëmale kanam te du seen intérêt bopp kon lépp lu ngeen mën lu ngeen ñu mën di wax rek doon na loo xam ne moom moo ñuy jëriñ kon sëñ bi maa ngi lay sant bu baax di sant njaboot gépp di la nuyu ñoom ñëpp di leen nuyu ñoom ñëpp waaw maa leen nuyu ñoom ñëpp bari naa ci ay xarit ak i kóllëre te gën yàlla ci biir kër gi loolu yàlla def na ko nuyu bàyyi siis démb rek gis naa ko ñu ngi waxtaanee xew-xew bi fi war a am ci mois de septembre bi di féliciter ci ndax boo defaralee diine lu day noonu defaral doomu saalum saalum yi lu day noonu du sax doomu saalum saalum rek waaye képp kuy doomu aadama ñëw fii loolu mën na laa jariñ kon bu ñu toogee fi seet war nañ cee bég war nañ koo wax war nañ koo wane ndax jëf ju mel noonu loolu mooy jëf yi nga xam ne moom moo yokk senegal waaye jëf yi gën a jubale kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di bég lool ci ñëw fii ci sa euh, pour déglu la pour waxtaan ak yow loo ñu wax rek ci la ñuy tënku te amuñu sikki sàkk loo ñu ñaanal yàlla dana ko def jërëjëf lu mu ñaan ko yonent dégg ngeen barakaatu. nuyu nit ñu tedd ñi moo ànd ak ñëpp dëgg-dëgg tey nari na tàkkusaanu feet la am ndax yàlla dajale na fi nit ñu tedd ñu ci Sénégal yëpp yàlla tànn nañu fa fu nekk kilifa ñu ko seet si nari yàlla woon leen fi lu dal seen xol yal yàlla dégg loo leen fi itam lu dal seen xol nari ay sénégalais ñoo fi dëkk comme sénégalais yëpp lu sénégalais bëgg pour sénégal loolu la bëgg lu sénégal am pour sénégal ci loolu lay la nga am Euh, te Sénégal dëgg-dëgg yàlla moo ko baaxal wax nga dama dem Cameroun def na du man maa fa dem dëgg la su ma jëm a fa présenté waaye Sénégal moo fa dem taarixu Sénégal moo fa dem melukaanu Sénégal ci diine moo fa dem te moo fa demoon ba fa Cheikh Ibrahima njëkkee dem ñoom ñëpp ñu fekk si ko Cheikh Ibrahima ba muy dem Sénégal sénégalais moo fa demoon lim xam Sénégal loolu la yóbboon présenté ko ci àddina bi àddina bi yëpp nangu ko donc bon Sénégal réew mu kawe la réew mu baax la nit ñu kawe nit ñu baax ñoom la fi yàlla dëkkal yal nañu yàlla gën a may ñu gën a xam suñu Sénégal gi ak kawewaayam ci waxuma ci ñun rek waaye ci biti àddina bi boo génnee rek Sénégal am nga respect boo xam ne da ko doon noonu rek da fekk rek ne am nga ko ndax yàllaa ko mayee noonu muy taarixu Sénégal ak liggéeyu Sénégal du léegi rek la àddina bi njëkk a gis Sénégal Cheikh Oumar Tall gis nañ ko Nigéria bu yàgg yàgg te Sénégal la bàyyee ko Cheikh euh, Dan Fodio moom itamit fii la nekkoon Sénégal yàgg nañ koo gis ci mission yoo xam ne mission yàlla la religion defar yar yëkkati loolu mooy Sénégal waxtu wu nekk nag loolu mu ngi am Sénégal boo nekkee ci biir Sénégal parce que fi nga dëkk doo gis nii xew waaye boo demee ci biti rek di nga xam li Sénégal teraanga bi ko yàlla defal teraanga diine teraanga xam-xam teraanga bëgg nit ñi teraanga nit ñi bugg la loolu yëpp yàlla may na ko Sénégal te Sénégal lay bàyyi ko dem feneen Sénégal tàllalatul loxoom kenn pour ne na ko dolli diine tàllalu ko Arabie Saoudite dollalu ko feneen suñ diine bi am ñoon ñoo koy jàngale ci biti waaye amatuñ fu ñuy jàngee ji diine ndax alhamdulilah mokk na boo boo sax xam nga diine parce que nag boo jàngee yàlla dina la àggali ci noonu sa maam tànnoon démb pour yàlla yàlla nee na boo ma tànnee ma tànn la te tànn boo xasee tànn dootu dellu gannaaw mm-hmm. hmm? bon ñu fi nekk ñëpp ci ay nit ñu kawe lañ bàyyi ko ci ay nit ñu baax lañu bàyyi ko ci ay nit ñu yëkkati lañ bàyyi ko nit ku yëkkatiku kawe nag jóge fu yëkkatiku du mun lu dul waxtu wu nekk rek mu am coonooy bëgg a dolli am coonooy bëgg a hmm. ah, loolu yëpp ci ngeen nekk nii bëgg nañoo dolli hmm. bëgg nañoo yëkkatiwaat bëgg nañoo xamal suñ dëkkandoo yi ak Sénégal ak fudu Sénégal ne boo liggéeyee di nga dolli boo liggéeyee di nga dolli boo liggéeyee yàlla dina barkeel seen liggéey boo boo liggéeyee di def li nga xam ne boo tëddee sa xol dafay dafay dal te Sénégal xam na ko wax léegi mu ne xol yu baax la yam def naa monsieur le ministre moo ko ay xol yu sell ñoo fi nekk xol yu baax ku nekk yàlla yàlla fay sa xol euh, te Sénégalais bu nekk biir xolam di ci nekk yàlla rek xam xam bu waaye li koy firi mooy li muy def ah lii jotaay bii tey mooy firi lu nekk ci suñu xol yi mooy ne Sénégal itteel nañu te ñun ñëpp la itteel Sénégal bëgg nañ mu dooleeku te ñu ñëpp la itteel donc bon lépp loo xam ne dina àggale ci kawe ak yëkkatiku ñun ñëpp ñu ànd ci ak suñu xol ak suñuy ñaan ñu ngi teg suñu tànk fi ñu ko war a teg di des mu ci loxo yàlla yal yàlla àggali ko ngi gërëm mbooloo mu tedd mi yëpp Abdou Latif Coulibaly euh, Zahra Zahra sama doom yow dama lay pini dëgg dëgg kenn xamul looy wax ak loo dul wax nit ñu tedd nit ñu baax si Alioune Sall nit ñu kawe nit ñu yëkkatiku li leen war mooy ut lu ko moo tax ci ngeen nekk boo yëkkatikoo dootoo ut lu ndaw da ca kaw rek ngay ut hmm? moo tax nit ñu baax ñëpp sonn nañ waaye terewul seen coono demul ngelaw ah àddina bi yëpp yëg nañ ko ba demee ba Cameroun ay junne nit ne ne dañuy tuub am ñeneen ñu xëcc fekk sonn naa mënatuma dara ñu leen naa ñëw mënatuma may leen maa ngi dem dinaa dellu si waat loolu yëpp Sénégal la du man Sénégal la parce que Sénégal la dëkk euh, Sénégal laa màggee ci laa jàngee ci laa xamee ci laa pratiqué ci laa nangam ak nangam ak nangam keneen jàngalu ma ku dul Sénégal sama baay moo ma jàngal Sénégalais la donc lu ma xam rek Sénégal laa ko xamee ci suma baay donc bu ma demee suma baay Sénégalais la li ma jàngal jëlee ko ci Sénégal ak ci Sénégalais yi bu ma demee loolu rek laay répété foo mënti nekk.